ñu génn ci sujet boobu attaqué deuxième deuxième sujet bi moom mooy saison de 2020 2021 saison bi ubbi na depuis le premier mars bi passé mais ba léegi benn combat amagul situation boobu nu nga ko dundee Gris 2 waaw situation boobu mooy rek ba léegi pare wuñu mhm. parce que dafa bett ñëpp mhm. promoteurs yi ñoo war a organiser làmb yi yaakaar naa mhm. instant yi xajul sax ci saison bi c'est vrai kon lamb ji am na mais promoteurs yi pareeguñu te en plus tamit kon li doon wax ñun lan moo war a gën a tax li ministre bi wax metti ñu mhm. mooy trois mois lañ toog di ko jooy trois mois mhm. di woo fu nekk état mhm. suñu ay autorité mbër yëpp génn wax ba sonn mel ni ñun pour man sax gouvernement bi xamuñu xamuñu ne làmb mu ngi am ci Sénégal mais ndakate yoo ñoom xam nañ ne ñun ñu ngi am kenn faalewuñu moo tax ba affaire bi amee ñu tudd ñu ci mbër yi nag wax dëgg yàlla bu ñu meroon ba def leneen sax dañ leen di war a comprendre ndax nit kuy jooy faale woo ko. Mhm. musiba am ci réew mi nga ne ko yaa ko fi def. kooku xam nga ne kooku naqar naqaru xolam war na dépassé wu fépp. d' accord non seulement làmb ji ubbeegul mais bu ubbee également ci huis clos lay lay demee. Mhm. ngay bëre ci stade bi kenn du fa nekk. loolu noo ko nar a dundee Gris 2. loolu ñun tàmmuñu ko. Mhm. mais ñàkk pexe pexe la. c' te am nañ. kii comme que vaccin yi ñëw na. Mhm. ni ñoo ngi vacciné wu. Mhm. normalement ay huis clos yooyu noonu mën nañ def rek ne képp ku am képp ku vacciné wu comme que yaa ngi en sécurité. Mhm. am nga droit dugg. loolu tamit day gën a tax rek. campagne yu vaccin mhm. normal nit ñi dugg. Mhm. mais loolu moom du xalaat moom parce que promoteurs yi lay xalaat quoi. bu leen état accompagné wul moom huis clos du mën a nekk. d' accord euh, euh, combat yi taxaw na bëri bëri noonu sax ay grand combat yi wala grande affice yu bëri ñu ngi fi boo ñu doon def analyse ci combat Modou ak Ama lan nga ban lecture nga am ci combat boobu. non loolu moom demal ci borom xam-xam yi moom mais man yooyu man. ayoo ma ci eh. ñoom daal. <laughs> Eh. que le meilleur eh, ñoom ñëpp sunu ay frères lañ. Mm. ñu leen di ñaanal làmb ji stade yi. ñu bëre. xam nga ku mm. yàlla dogal sa daan rek parce que mm. ñëpp mën a daanante làmb moom saay. c'est vrai képp ku naan la kii woo mën kii kii woo mën kii. Mm-hmm. xam day commentaire rek. mais làmb dañ fay gis lu ne moo tax. waaw gis nañ ba tàyyi ñu tagg kenn après bis ba ñëw changé. d' accord ñu dugg sa combat yow ak Abdou Diouf am nga combat euh, tegoon nañ ko bu yàgg mais ba léegi démarré gul yan situation ngeen nekk est ce que promoteur bi wax na leen benn date boo xam ni war ngeen mën a bëree wala. waaw promoteur bi waaw euh, jàppaguñu date fixe. mais mhm. instant yi moom ak ni làmb ji ubbee nii moom. Mhm. am nañ yaakaar ne moom normalement. Mhm. après ramadan bi dinañ sëgg bëre quoi. donc combat boobu moom mi ngi bëgg mat deux ans. te loolu moom saay d'accord xam nga ne ñun kenn gënu ñoo metti la. ñun bu ñu woon sant yàlla rek moom. ak mm. euh, xam nga rek. tooguñu tamit dañuy lijjanti suñu bopp si dëkk bi lañ dëkk. d'accord xam nga mais bu ñu woon loolu moom kenn waxatuñu ko kenn waxatuñu. parce que metti na trop. d'accord ngay bu rek mbër boo xam ne ni am na expérience moom moo la jiitu foofu ci làmb. Mhm. Euh, yan qualité wala yan défaut nga xamal ab Diouf. non man Abdou Diouf moom xamee wu ma ko ay défaut. en tout cas daal qualité moom xam naa si dara mooy nit ku ñeme la. Mhm. nit ku am sañ-sañ la quoi. Mhm. waaw loolu moom xam naa ko ci moom. nan nga nar a ñëwee ak moom ci le jour ji. waaw ñëw bëre man ab man comme d'habitude man mhm. benn bëre laa yor mooy arbitre day siffler ma ñëw def li ma war a def musuma yéexal adversaire euh, combat waaw musuma yéexal combat musuma tardeel amateur man bu arbitre siffler damay ñëw def ci bomb xam nga après que le meilleur préparation si sa préparation euh, instant yi ci yan condition nga nekk si sa préparation ñaata séance ngay def par jour. waaw deux séances la ñuy def. depuis dafa yàgg. Mhm. fii dóor nañ fi ay yooni yoon yoo xamante ne dañuy dóor teg ne dans deux mois dañuy bëre. Mhm. dóor ba nekk cent pour cent di xaaraat dañuy mujjee ralentiraat sax. Mhm. reculer waat xoolaat affaire yi. noonu xam nga. d'accord moo tax mais instant bii nag moom. comme que mhm. saison bi ubbi na moom. Mhm. dara dootuñu bett incha allah. d'accord yaa ngi dem ci benn combat da ngay yokk sa poids wala da koy wàññi. non man moom ba ma daree dugg ci làmb ba léegi. Mhm. combat bu ma am. wàññi poids mooy sama soxla. man mosuma jéem a yokk ndax man. bu ma noppalu ko une semaine sax laa la wax ni boo moytuwul mën naa jalaat di kilos léegi. waaw ah, parce que ñun yàlla noonu la ñu bindee te ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax man moom. bu ma amee combat duma ma wu ci ay wàññeek yokk mooy man damay fexe la tout ba sentir sama bopp ba nga xamante ne lépp lu ma bëgg def maa ngi koy def di bëre temps bu yàgg sans sonn après garaawul Abdou dafa def benn sortie ne Gris Gris 2 am na combat na defar bu baax a baax a baax dégg nga kàddu yooyu waaw moom xam na loolu man Gris 2 man aw ma ñaar aw ma ñett man benn laa am benn façon mhm. mooy lépp lu may def dama ciy def fulla mhm. def ci fayda def ci jom mhm. le reste man combat revanche la daane woon na giri giri Bordeaux suma jumul mhm. yaa ngi def loolu sa xel waaw baax na loolu tamit bokkoon na si sunu ay defi mhm. waaw képp koo xamante ne rek am nga bëree nga ak giri rek mhm. bu ñu dajee ak yow kon moom li mu defal ay magam parce que amul benn mbër bu mës a daan Tapha Gueye daan giri waaw Tapha ñaar ñi ko daan jote bëree giri Tyson la ak bombardier. Mhm. te ñoom ñaar ñëpp gris. da leen a agressé daan leen. d' accord kon yow su ma su ma nit képp koo mhm. xamante ne mos nga bëree gris donte ba muy daan gris nag. Mhm. boobu xamal ne jamono boobu yow mii sax. majeur goo woon. <laughs> ndax ay vingt ans ci ginnaaw la woon. te jamono yi deux la woon. xam nga lu ma la wax. oui deux woon sukk rek daanu jeex na mais teewul ba léegi ndam-ndam la rek. kon daal daal nu ñu yàlla may ndam ci kaw. Gris pare na pour jël revanche su Gris Bordeaux ci Abdou waaw loolu moom amul sax demal te ñëw. Abdou Diouf mbër mu mën a door la. Mhm. est-ce que pare nga sóoraale nga loolu. waaw ah, yow yow ñun ñëpp xamante nañ hmm. làmb moom saay hmm. bul sonn <laughs> gaa yi ñuy faale ay dóor ak ñi faalewul ay dóor nit ñi xam nañ leen man moom làmb hmm. saa waaye lu mu gën a cuq rek gën a lu mu gën a metti rek gën a neex man dara garaawul en plus dernier défaite ak dernier combat am ci face la ko jëlee contre Forza waaw loolu motivation la de plus ci moom est que loolu yëwit du la perturber tuuti nu mooy perturber Forza ñoo ko bokkoon di préparer maa àndoon ak Porza ba Diourbel. mu dem ñu daan ko. Mhm. incha rab rabbi tamit noonu rek lay dem. d'accord waaw ñu dem rek préparé wu ñun ñëpp. d'accord dem bërewaat ak moom daanaat ko incha allah. kon daal ab Diouf am na problème. waaw sant yàlla daal Abdou daal mu ngi noonu. <laughs> Gris moom saa <laughs> ku ko jël war nga xam ne di nga di nga bëre moom. c'est vrai nga bëre di nga xeex. <laughs> combat bi yàggatul peut-être mais est-ce euh, fi ngay motalee sa préparation wala. façon du demati moom man ndax man euh, ba corona bi di ñëw juste le 3. Mhm. Mhm. le 3 mars boobu muy ñëw. Mhm. semaine boobu laa waroon dem France pour préparer ji. d'accord far coronavirus bi dugg. nga toog xam nga ñu mujjee toog. te toog bi tamit réccu wuñ ko parce que fi ñu doon dem France. fépp la ñu mujjee tëj. salle de musculation mm-hmm. yeeg yëpp quoi. Mm-hmm. moo doon sant yàlla. ok euh, Lac ngay defee sa entraînement mais est-ce am nga am nga euh, coach yi fa yoo xam ne nii mën nañ la permettre nga pare physiquement la jour ji. waaw man moom saa ñun nag affaire yi fa lañ nekk. amul mm-hmm. ay coach ak ay Lac Rose ak yi écurie Fass lañ nekk. écurie moom saa lu waaye mën a wax rek ci àdduna. amul benn amul benn domaine. ci làmb boo xamante ne nit mën na leen ko jaay. d'accord moom koy xanaa ñun ñu bañ a jaar fi ñu war a jaar. mais bu dee ay technicien mhm. ay préparateur physique. Mhm. ay président. Mhm. président bi ñu am amul benn écrit bu ko am ci Sénégal. d'accord technicien yi nekk foofu amul benn écrit booy dem ci àdduna. gis technicien yi nekk Fass. nga gis fa ñu dajaloo fa ñoom ñëpp ci écrit yooyu. d'accord dañuy agsi ci fas génn nañ fi benn information comme quoi que Fass day def euh, benn fusion entre Fass et Ndakaaru loolu d'accord nga ci. waaye yow ñun dañoo man dama am lu may d'accord fas man génn laa fa <laughs> Fass mun ay génn lañ fa dañuy diree ko rek uh-huh. fu ñu jàdd rek ñun dañ ciy topp noonu di dem d'accord mais ñun amuñu lu ñuy bañ ak foofu lu ñuy nangu bu ñu xëyoon suba sax ñu ne écurie Fass dañoo changé tour bi mm-hmm. tuddee ko écurie Guédiawaye sax bu ñu gisee Abbas Ndoye nekk fa Père Tafa Gueye nekk fa rek dañ naan d' accord. parce que ñooñu xam naa ne du ñu am benn décision bu ñuy jël. Mhm. boo xamante ne du suñu intérêt ñun ñëpp. d' accord mhm. euh, entraînement ñu ngi ko doon annoncé commencé na wala commencé wul. waaw ah, bañ ko comment bañ ko annoncé jour bi gars yi war a dem. Mhm. premier jour. ci le couvre feu bi ci la couvre feu bi amoon. c' ci la couvre-feu bi ñu kiiwaat koon ko quoi. Mm-hmm, mm-hmm. après nag ñu xam ne loolu mënul nag. ñu mm-hmm. changé ko mais comme que couvre-feu bi yéeg nañ yéegal nañ ko. am na yaakaar ne dina dina commencé léegi. d'accord Fass année yi boo ko xoolee da xam ne fas euh, doxatul tellement défaite yi bëri na victoire yi néew na lan moo waral loolu. waaw loolu dañuy wax rek mais làmb instant yi làmb d'une manière générale. mënoo ma wax benn écrit buy dox instant bi làmb moo nekk en crise bu jàmm di am wala ñoo xamante ne dox nañ mooy yéen site télévision yi yéen donc <laughs> mais promoteur boo amul crise <laughs> gisoo ko écrit bu amul crise gisoo ko amul nag benn écrit boo ma mën a bindal na ma ah écrit bii kat ay ndam dong lañ am amul kenn ku sa résultat baax d'accord Fass dafa am ay espoir yu bëri yaa ngi fa ñoom Lac Rose ñoom Forza mais euh, wutal leen combat néew na wala jafe na Forza amul combat Lac Rose amul combat loolu est-ce que euh, staff phase bi amu ci responsabilité. loolu si situation làmb la loolu yëpp si situation làmb la làmb bu doxee normal. Hmm. promoteurs yi ñëw normal. Hmm. ñëpp képp ku war a bëri da ngay bëri. mais làmb ci boppam. moo moo moo taxaw instant bi waaw moo tax na président de la république. Hmm. ni ministre bi. jàppale noonu ci xelam. ba jàpp mbër yi tey jii. ñoo def affaire yooyu noonu ci réew mi. kon ñoom xam nañ ne ñun ñu ngi dund lu méttee métti ñoom dañu faalewul mais kon ñun xam na ne ñun kon ñu ngi dund lu méttee métti kon nag loolu ñoom président ni ci wut pexe d'accord waaw parce que làmb ji bu ci wutee pexe waxuñu ñu ñi waxuñu mais ay huit mille ñoo ci nekk ñoo xamante ne ay nit yu différent la ñu waaw te même buñ touché wul sax mhm. buñ touché wul alal ju bari comme ni ko ñenn ñi amee sax mhm. mais làmb buy daw rek mhm. buy daw rek ku ci nekk ba mbër mu ndaw mi sax ba foo mënti toll di mën a am am sa wërsëg nice quoi. d'accord arrivé nañ ci njeextalaayu entretien bi. Mhm. booy tàggatoo sa dernier mot lan lay doon. waaw sama dernier mot moom instant yi moom. fi réew mi xanaa rek di ñaanal sunu sunu kilifa yi nga xamante ne amuñu lu dul ñoom. muy tey ku lim sax da ngay juum ma sax lim. Mhm. mais boo nee Touba. Mhm. Serigne Mountakha. mbay Mbaye Mansour. yal na yàlla guddal fanam may ko wér Serigne Mountakha yal na yàlla guddal fana may ko wér. Baye Ablaye Thiaw euh, Medina Medina Baye na Niassène xam nga ëhlu euh, kuntiyu waaw mm-hmm. ah, waa kër Cheikh na Cheikh Sadbu ba mm-hmm. xayartu xam nga kilifa diine ba ba fuuta waa daaka ba Medina Gunaas njabootu alhaaji Omar fuuti yu taal yëpp mm-hmm. xam nga kilifa yooyu nga xamante ne suñu ay or lañu plus lañu si réew mi ñu mën leen gën a jox xorma parce yeneen réew yi ëppale wuñ leen dara de. c'est ay nit dong lañ ñuy ay nit. mais ñooñu lañu am te ñoom amuñu ñooñu. moo tax réew bu amee fu mu yegg am ay saas yoo xamante ne. Mhm. dañ leen di déglu nit ñooñu dañ leen war a gën a fexe nu yokkee seen ay seen ay kii. d'accord xam nga di wax président de la république rek. Mhm. mu jéem a nekk copain ak jeunesse bi. Mhm. rien n'est trop tard pour bien faire. d'accord waaw ah, na xaritoo ak jeunesse bi. wàccee boppam sol casquette dugg si biir jeunesse bi xam li xew dëggantaan xam nga ba nga xamante ne ëllëg bis bu jugee si Sénégal ba fiy retourné di ñëw. Mhm. jeunesse bi mën koo teeru teeru bu rëy rëy rëy rëy. lépp lu doxoon seen diggan digganteem ak jeunesse bi ñu fàtte ko. te bu mu ci doxal kenn bu mu yónni kenn. Mhm. parce que ñi ngay yónni yëpp duñ la doxal liñ la war a doxal. gars yi dañuy soob ñëw fii di mosal askan bi. Mhm. yooyu la ko askan bi meree moom na wàcc ñëw en personne. xam li xew mu dox ko. jaajëf. jaajëf Gris 2 waxtaan wi mi ngi noonu euh, rafet na mais également di la remercier si sa disponibilité ci añ bu neex bi lay naan gi lépp mën na matu yàq na boppam ci lekk gi li <laughs> leen jox di dig daje beneen yoon ci beneen jotaay jërë ngeen jëf yéen euh, waa internetu Leewtoo TV jërë ngeen jëf.